wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi gannaaw ba nu sandee suñu boroom subhanahu wa taala julli ci ab yonentam Mustafa sallallahu alayhi wa sallam di sant asayxul xadim delsiwaat nañ mbokk yi ci jotaay bi nga xam ni baaxoo nañ ko ànd ak yéen muy yóbbalu suba ci seen télévision bii nga xamante ni mooy Mouride TV ba tey rek mbokk yi ñu ngi ci njàngaleem sayxul xadim nafaana allahu bi barakaati sir ismihi ba tey kon mbokk yi ñu ngi ci li ñu tuddee jëw ci bon gumu bon ak itam moytandiku goo xamante ni war nañ ko ko moytandiku dafa am ko xamni dafa ñew ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bo met jawaru nafis di nga fekk shaykhul qadim di fa jangale bi ñew ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko ya Rasulullah, man day alkuna yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan mo alak muniko ni ko man day dama njaalo ci ak tayef gu bayiko ci man ba noppi dama ne ko xamanteni ku ku sangewu moy ko xamanteni ya denc nga soxna budé dee moy ko xamanteni xamante denc na soxna budé jigen moy ko xamanteni nek na ci bu buumuk sey koku ñew wax ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam sallam ni ko yow ki yalla yoni man day alkuna yonente bi sallallahu alayhi wasallam sallam ni ko waaw yow lan mo alak mu ni ko man day dama njaalo te loolu mako ko tey ba noppi dama sangewu yonente bi sallallahu alayhi wasallam sallam ni ko demal wote ñu rajmu la rajmu moy ñu sanni la ay xer ba nga faatu ndax xam nga ci chariatul islaamiya su fekkente ni góor la goo xamante ni mus naa jaar ci bu mug sëy muy mus naa am soxna wala soxna soo xamante ni mus na jaar ci ab sëy su boobaa dañ koy rajmu waaye su fekkente ni nag koo xamante ni mus cee jaar su boobaa dañ koy dóor li nga xamante ni mooy téeméer yar comme noonu ko alxuraan doon waxe euh, muy kenn ku nekk ci ñoom nañ leen dóor li nga xamante ni mooy téeméer yar bi mu waxee nag mu daal di woote ngir ñu man war ko raj koo bi ñu ko rajmoo nag moom waajooju ba ba noppi ba mu faatu ba noppi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ko ci jotaay boobu di dem am ñaar nag ñoo xam ni ñi ngi topp ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jëw kooku nga xamante ni moo njaalo woon ba ñu rajmu ko ba mu ñaar ñooñu topp ci ginnaaw bi sallallahu alayhi wa sallam di ko jëw euh, ñaan moom ndekete bologam yu rëy yi yëg kurusam gu guddi gi yëg sikkinam bu guddi bi ndekete moom nii la fi nekke ah bi ñuy wax loolu rek di wax loolu topp ci ginnaaw yonent bi sallam di wax loolu ba àgg ci méddum mbaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni leen yéen ñaar ñii kaay leen lekk leen ci lii daal di giiñ moom yonent bi sallallahu alayhi wa ni leen kii daal ngi xamante ni moom ngeen doon jëw gis naa ko muy xëcc ay yéreem foofee nga xamante ni mooy àddina ñaar ne ñu am kersa kon gis nga jëw mbokk yi ni mu doy ak jëw itam ni nga xamante ni noonu la bone ak itam ni nga xamante ni noonu la xaraame mu nekk loo xamante ni lu mot a bàyyi xel mu bokk ci kabaayir yi te mooy bàkkaar yi nga xamante ni mooy bàkkaar yu mag yi moom jëw ci la bokk ni ko doon tam ràmbaaj mbokk yi ndax xam ngeen ni ràmbaaj moom itam dafa bokk ci yi nga xamante ni ni kabaar yi la bokk te mooy bàkkaar yu mag yi ci la bokk moom ràmbaaj te dafa bokk itam ci yi nga xamante ni dafay yàq te mooy euh, jaxase diggante ay nit walla sax toxal waxtaan woo xamante ni da nga koo te dara jubluwoo ci dara rek lu dul ci gu yaq te mbok yi lolou bari na surtout sax jamono yuñ tollu ak ci jumtukaay yu xeran yi ndax gis ngeen leg rek mbok yi am ñaari nit ño xamante dañuy waxtane waxtaane euh kenn ki wëlbatiku jël loola genné ko am kanen kum ko yët ay jafé jafé yu bari bari bari dal ci genn ak i yu kenn xamul te lolou lepp mbok yi man nañ ko dugal ci li nga xamante ni mooy rambaaj ndax rambaaj moy tuxal ab waxtan rek te jublu ci dara ludul ci anamuk yàq dem ci diw ni ko mom day la la diw wax nangam nangam diw nettali fa yo xamante te diw ci dara lu yak sen digeunte bokki kon yoyu dafa jara ko ndax dafa bokku ci kabair yi te moy bakkaar yi nga xamante moy mooy yu magi te yonente bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ci ahadith bo xamante ni bu bu wér la ni baaj day du tabi aljana abraham baaj yonente bi sallallahu alaihi wasallam neena abraham baaj du tabi aljana kon lolu mbokk yi lu mat xel ni ko tam li ñu rëy mbokk yi ndax xam ngeen ni mbokk yi rëy bokk na ci li nga xamanteni moo iblis leexnatullahi alayhi ndax bi nga xamanteni suñu borom subhanahu wa taala bind na suñu maam aadama alayhi salam dal di digal sant mboolem ñi nga xamanteni ñoy ñooy malaaka yépp suñu borom sant leen ni leen sujjóot leen ci ki nga xamanteni moy mooy ila iblis malaaka yépp ma si sujud, ñom ñépp ñu sujjóot bam des iblis mom aba mu dal di bañ ngir lan ak rëy rek mooy li nga xamante ni moo ko yóbbee suñu borom ne ko yaa iblis maa manaxaka am tasjuda lima xalaqta bi yadaya astakbarta am kuti minal aalin yow iblis lan moo dox sa digganteeg lan moo la tere nga sujjóoti li nga xamante ni man maa ko bind ci sama yox yi wala ndax yow ngaa bokk ci ñi nga xamante ni nii ndax da ngay réy loolu ndax ngaa bokk ci ñi nga xamante ni ñooy minal aalin waaw ndax ci ci ci ñooñu nga bokk nee na mu ni ko annaa xayrun minhu xalaqtani min naa wa xalaqtahu min tiinin man day du ko si dootal ndax kii maa ko gën maa ko gën du ma ko si dootal ndax eh, yow yaa ngi ma bind ci sawara moom nga bind ko ci ban kon man maa ko gën du ma ko si dootal wax nañ sax ni eh, xalaqtani min nuurin la bëggoon wax ndax xam nga malaayika ñu ngi ko bind mbokk yi ci leer waaye mu daal di far wax rek la nga xamante ne moom la ci saanoo ndax loolu xam naa day bu gudd boo xamante ne du du fi xaj wala kon day jël temps bu yàgg-yàgg te mooy xisab iblis laanatullahi alayhi ak na nga xamante ni na la juddoo ca diggante la nga xamante ni mooy sawara ak jinne moo nekkoon yaayam waaye loolu dafay nekk xisa boo xamante ni bu gudd la xamaa dañ koy bàyyi du ñàkk yeneen dimi jamono incha allah ci jotaay dinañ ko gën a leeral ci wàllu googu su ko kon mu xamal suñu borom ne kooku man maa gën ndax yow yaa ngi ma bind ci sawara moom nga bind ko ci li nga xamante ni mooy ban kon duma ko sujjóotal suñu borom ne ko faxrut minha fa innaka radimun wa inna alayka laanatiya ila yawmi din waaw génnal ndax yow kat da ngaa nekk koo xamante ne ku ñu raj bu nga te sama rëbb itam ma ngi ci yow ba keroog bis penc waaw kon iblis mbokk yi ñu gis ni la li ko daal li ko ko yóbbee li ko ko yóbbee mooy rëy moo ko ko yóbbee kon mbokk yi rëy baaxul rëy baaxul kon lu mat a bàyyi xel su ko defee itam kon nit ki day moytandiku li nga xamante ni mooy rëy fexe nekk kuy toroxlu ndax dañuy wax ni képp koo xamante ni nii day rëy rëylu su boobaa yàlla subhanahu wa taala dina ko wàcce waaye képp koo xamante ne dafay toroxlu ngir yàlla su boobaa kooku yàlla subhanahu wa taala dina ko yëkkati waaw su boobaa yàlla dina ko yëkkati waaye nañu moytandiku nag mbokk mel ni xob nga xamante ni lu jóg rek yóbbaale la su boobaa itam loolu da lay jural ay jafe-jafe ndax boo woyofee ba mel xob nga xamante ne lépp lu jóg mën laa yóbbaale rek su boobaa call meer mën naa jóg yóbbaale la te mën na laa dugal ci kàmm goo xamante ne kàmmuk sawara la su boobaa da tàkk ba jeex kon loolu tam mbokk yi ñu moytandiku ko xam nit ki daal na moytandiku li nga xamante ni mooy rëy na nekk koo xamante ni kuy toroxlu la euh, ci boromam subhaanahu wa la waaye moo ni ak rëy xam naa kon mbokk yi foofu la ñuy taxawlu ci jotaay bi jox leen digle incha allah taala ci beneen jotaay seen mbokk Mahmoudan Ndiaye doon fii ci Touba li gën ci nun yàlla nañ suñu borom defal te dëppale koog li ñu gënal wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.